suñu mbokk internet yi ñu leen di nuyu baax baax leen ziar lay wax ni dal leen a seen chaîne Dakar People te ñu ngi fii Ouest Foire euh, seet si koo xamante ne kenn dootu ko présenté mu yëngu ci wàllum faj wàllum ñaan muy kan muy euh, muy Serigne Babacar Ndao Serigne ñu lay nuyu di la bàyyi nga nuyu askan wi. maaleykum salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah waa internet asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaara di leen wax dal leen ak jàmm fii si bërëb bii nii. ñu lay mhm. waaw alhamdulilah Serigne Babacar moom buñ ko waxee mën nañu wax ne sëñ Babacar ab taalibe la ab jaamu yàlla la. sëriñ Babacar mu ngi nekk nit koo xamante ne nii mu ngi juddoo fële na la cosaanam si Saalum la. Saalum nag buñ ko waxee day nekk dëkk boo xamante ne ni dëkk bu yàlla barkeel la ay nit ñu baax ñoo fa nekk foofu la Babacar juddoo ci région boo xamante ni région de Kaffrine foofu la juddoo kooku mooy sëñ Babacar. waaw alhamdulilah laaj nga ma question bu am solo. seet dafa am jeexintal si dundu doomu aadama njaay parce que seet yenent bi dafa wax si hadis mu ne maa ngi eh, yërëm naa nit koo xamante ne ni lépp loo xamante ni mu ngi siy dugg te du ko seet seet dafa nekk loo xamante ni dafay jouer si rôlu doomu aadama nit lépp looy dugg lu ne te seetoo ko gëstuwoo ko nga ñu seetal la ko loolu mën naa wax ne doo si am résultat ba àttaa nit balaa ngay dëkk ci dëkkuwaay war nga ko war nga dem ñi seetal la ba xam bërëb bi baax na walla bërëb bi baaxul nit ki bi tukki balaa muy soobu ci yoon war na dem ñi seetal ko ba xam yoonam bi bu demee yoon bi dina neex walla yoon bi du neex ba nit ki atta nit ki bi jël soxna war na dem ñi seetal ko wala ñi lis ci xaaral ko ñi seetal ko seet nag fii lañ ko fekk te lu wér la yeneentu bi wax wax na si alquran wax na si parce que seet yàlla mu ngi ko wàcce woon si yeneentu yàlla Idrissa kon seet moom kenn mënu koo dàq defe naa waaw waaw non nag duñ seet si pettaaw ñu ngi seet si suuf la ñuy seet ak listixaar comme tey jii nga jox ñu sa tur ak sa tur waajur bu jigéen ñu fanaanoo ko bu ko defee luñ gis rek ci wàllu seet beeg listixaar bi ñu wax la ko ñu ngi seet nag fii ba bitim réew ak senegaal wàllu seet moom defe naa ne alhamdulilah am na si ñoo xamante ni ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan fii si senegaal ak si bitim réew néew nañu seetal nit ki te duñ ko gis loolu moom alhamdulilah am na yàlla waaw Mhm. waaw cat tey buñ doon wax ci wàllu cat. cat mën nañuy wax ne cat mooy loo xamante ne ni comme nit ki bu bopp bi amee karaw ñu ne eh, kii boppam bi am na karaw wala bu bopp bi amul karaw ñu ne bopp bi amul karaw mhm. cat dafa nekk loo xamante ne ni bu nekkee ci doomu aadama bi mooy loo xamante ne ni mën na ko nit ki mën na am avenir wala mu am alal mhm. nga gis nga gis ne kii dañ koo catu bu dee ay entreprise la yor entreprise yu commencé di daanu société yi di yàqu xaalisam di seey noonu di dem di dem di dem ba tasaaroo kook nag nga xamante ne ni cat dafa nekk si moom bu ñëwee incha allah si ñun dineen ko ko dindil ba mu set te dineen ko defal loo xamante ne ni benn doomu aadama njaay dootut ko mën a catu cat dafa nekk daal loo xamante ne ni cat cat mën na topp nit ba si biir bàmmeel parce que ñu ñu ngi may nettali benn xisa benn waay boo xamante ne dafa génnoon àdduna ñu teg ko noonu si buntu këram gu mujj gi ba war koo euh, denc noonu néew bi bëringu ba dugg si biir pax bi am kilifa yi nekkoon foofu ñu ne suul leen ko kii cat moo ko topp kon daal cat mooy loo xamante ne ni day topp nit ki ba si biir bàmmeelam waaye incha allahu rabbi képp koo xamante ne dañ laa catu wala bu ñu seetal la gis na yow daal cat dalaa sonal incha allahu rabbi boo ñëwee dineen la ko dindil te dineen la defal loo xamante ne ni bu soobee yàlla képp ku la catu ku ne rek catu na boppam wallaay waaw waaw ñaar yooyu ba tey dañoo nekk ñaar yoo xamante ni dañoo ànd parce que nit dangay gis nit koo xamante ne nii daal dafa dafa yàlla du koo ubbi waaye dafa bëri nit ñoo xamante ne dañ koy bàyyi xel lu tey ji boo jëndee oto nga yor oto bu rafet ñu ne eh diw nga gis nga diw otoom bi oto bi macha allah kii kay gis nga këram gi nangam gis nga soxna sum takk lu ko wàllu cat la liggéey nag mooy nga ak nit koo xamante ne ni tey da ngeen nekk xëj na nekkul sa soppe bëggul la bëggul daal yow nga avancé bëggul nga nga raw ko si benn anam mu dem si wàllu sëriñ mu liggéey la bu ko defee yem liggéey boobu noonu day am jeexantal si sa yaram bi bu dee dindiwoo ko mm. bu ko defee loolu mën na la tardeel mën na dema a dem a dem a dem ba indi la ay gàllankoor yu bëri wàllu liggéey nag mm. bu ñëwee si ñun incha allahu rabbi dinañ ko ko dindil te mm. am na ndomb boo xamante ni ak téere baat boo xamante ni boobu ñu ngi koy liggéey yàgg nañ ko liggéey incha allahu bi bu ñëwee dinañ ko ko defaral te bu soobee yàlla kenn du mën si moom dara. bayre est-ce que mën bayra moom foofu fii si senegal ak si bitim réew yëpp ñu ngi siy liggéey. wàllu bayra bayra nag ñaari poson dafa am. bayra bi nga xamante ne nii moo xam danga nekk footballeur joueur wala nga nekk mbër wala nga nekk nit koo xamante ni daal danga nekk nit ku bëgg a yëkkati ko boo ñëwee incha rab bii dinañ la defaral wàllu bay dinañ la defaral bayra bi moo xam nga nekk joueur moo xam nga nekk mbër moo xam daal si lépp looy yëngatu nga bëgg daal nga bëgg si siiw ba ñëpp xam la incha rab rabbi boo ñëwee dinañ la defaral bayra boo xamante ne defe naa ne fépp foo nekk fu ne jant ngay doon foofu noonu waaw waaw parce que bay bayra bu amee bu ñu la defaree bayra it dañ lay defaral musuluwaay parce que bayra bu ànd ak musluwaay boobu mën naa wax ne sa carrière du yàgg parce que boobaa du am kaaraange ñun nag boo ñëwee dañ lay defaral bayra boo xamante ne ni say bunt lépp mooy ubbeeku bu ko defee ñi aaraat la defal la ay kaaraange yoo xamante ne ni kenn du mën si yow dara koo xamante ne képp koo xam ne mu ngi lay fexeel it mm-hmm. day këppuwaat si koom rek waaw loolu nag lu koy waral bëri na. Mm-hmm. Ah, parfois am na loo xamante ne ni comme ñu am ànd da koy mm-hmm. loolu da koy waral. am na it loo xamante ne loolu si mbiru borom bi la. Mm-hmm. wante lu ci ëpp nag mën nañu wax ne loolu dañuy am ànd ndoor. loolu nag ñun dañuy wax ne jigéen yi nga xamante ne ni mënuñuy am doom wala mënuñuy am jëkkër. incha allahu rabbi ñoom buñ ñëwee loolu dañ leen koy defaral gratuite ñu may leen ko waaw gratuite lay doon incha allah ba attache góor yi nga xamante ne ni mënuñuy am soxna it fu ne ñu ngi fay dem buñ demee ba joxe guru wala buñ demee daal bu commencé am yaakaar rek mbir moom yàqu incha allah buñ ñëwee dinañ leen si jàppale ba yàlla defal leen si tawfiix waaw puissance sectorielle loolu it mooy comme question bi ma posé nii rek bëri na si tey jii loo xamante ni dafa lëmbee jamono jii ñii ñu naan si lekk yi la ñii naan lu si ëpp daal mu si lu si ëpp boo xoolee jamono jii àndandoor da koy waral àndandoor da koy waral ak lu si ëpp mooy suñ lekk yi ñuy lekk nii yooyu nag ñun dañuy wax ne euh, góor bu néew kàttan impuissance sexuelle bu ñëwee dinañ ko ko traiteel si sept jours bu nekkul loo xamante ni da ko judduwaale bu ñëwee dinañ ko ko traiteel si sept jours parce que loolu si affaire u la incha allahu rabbi ba mu tàqalikoo moom euh, ci wàllum tukki koo xamante ni ngi fii waaw loolu it dañuy waxaat alhamdulilah beneen yoon. képp koo xamante ne ni da ngay déposé kayit wala ngay lijjanti kayit pour bëgg a tukki ñun dañuy wax ne balaa ngay tukki parce que tukki dafa am lu koy waral nit mooy suñ première question bi fu ñu commencé woon mm. nit balaa ngay tukki mm. war nga dem ñu xoolal la mm. ba xam tukki bi boo demee sa yoon dina neex wala boo tukkee nit mu ngi tukki pendant cinq ans wala lu ay trente ans dem foofu am fa problème boo xamante ni bàyyi njabootam fii nii mu dem nekk foofu du nekk si ay conditions yu baax loolu yëpp dafa fekk waajalut boppam avant mi tukki. Hmm. nit lépp looy dugg lu ne war nga ko waajal nga préparer sa bopp ba xamante ne ni incha allah boo demee yàlla dina la si defal tawfiix ak taysir ñun nag nit ki bu dee yaa ngi jàpp yoon balaa ngay tukki hmm. boo loolu balaa ngay tukki si préparation bi balaa ngay dem fenn di war a déposer say kayit si lañ la koy defal nga sangoo ko bu ko defee incha allah bépp ambassade wala fépp foo mëntu taxaw moo xam wàllu kayit nga fay lijjanti moo xam da nga bëgg a tukki yàlla dana la defal tawfiq ak taysir si sa yoon woo ba nga dem si jàmm te boo demee foofu ngay demit yàlla dana la fa defal jàmm nit ña nga fay fekk dinañ la dalal ak jàmm yàlla dana la fa ubbiir sa warsak ba nga dellusiwaat si sa réew bi nga xam ne foofu nga jógee ko. mais bu ñu euh, mhm. ah. waaw alhamdulilah beneen yoon ñu santaar yàlla. Mhm. ñu ngi wax ne gàmmu gi soreetut. Mhm. gën nga gën a néew fi ne nii ay ay fan yu néew moo ci des. ñi wax ne yàlla nañu ci yàlla yóbbu ñu si jàmm. ñu dem si si jàmm ñëwaat ci ci jàmmu di dénkaatit mbokki suñ mbokki sëfoor yi mm. di leen wax ne leen nañ di def ndànk ay jamonoy événement mm. da ngay gis ñoo xamante ni dañuy am ay embauchement lu mat euh, ay kii lu mat ay cinq kii embauchement wala six wala lu ko ëpp mm. bu ko defee nag ñu bëgg a profité si yoon bi jël kii jël kii ne nañ jël kii buñ paree dem delloo ko te nit nit mënul lekk lu dul war sa gam événement nit ku ci nekk li nga xamante ni moom nga war a jël si sa war warsak ci suuru événement boobu boo defee ndànk rek di ci jël waaye da gis ñoo xamante ni dañ si jël engagé loo xamante ni mënuñ ko bu ko defee ba te yépp ay nit nga xam ne ay jaamu yàlla ñoom nga yëpp ay bakkan ñoom nga yëpp nga daw ndànk dal ndànk ba nga xamante ne nii nit ñi nga xam ne ñoom nga yëpp nga delloo leen si jàmm. waaw troisième mandat bi moom man damay wax walla bu ma doon wax. damay wax président na ko teg si suuf. parce que troisième mandat jamono ji bu dee yaa ngi déglu kii information walla yaa ngi seetaan télé yaa ngi dégg fu ne nit ñi ñu ngi fay yuux si réew mi réew mi foo laal jamono ji dafay metti jàngalekat yi ñu ngi yuuxu waa SDE ñeneen ak ñeneen ñëpp. nga xamante ni accords yi nga xamante ni état signé wante na ko ak ñoom na fexe mu matal lool bu ko defee jàngalekat yi mën a nekk si jàmm ba si ñi rakk yeeg si ñuy jarbaat yeeg si ñuy sët ñëpp mën a dellu si classe yi dem jàngi ba xamante ne ni njàng mi du am benn problème wante bu dee accords yi nga xamante ni signé vante na ko ak ñoom jàngalekat yi wala ñeneen ak ñeneen te loolu motalu ko it mu bëgg a wax troisième mandat te defe naa ne jamono jii ñu tollu Sénégal ni fii ñu toll daal réew mi métti na métti boo xamante ne ni fépp fépp foo laal fu ne rek mu ngi métti mm. troisième mandat boobu daal bu doon man la wala ma ma nekk di ko xelal moom dama naan ko na ko tëral si suuf mu liggéey ba xamante ne ni lu taxoon doomi Sénégal yi wala doomi réew mi dénk ko suñu réew mi mu jéem a matal lool bu ko defee ñëpp Sénégal ñëpp nekk si jàmm parce que Sénégal ñun Sénégal lañ am Sénégal mooy suñu réew Sénégal la ñu amuñ lu dul Sénégal bu ko defee nag réew mi comme ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu koy waxtaanee rek li nga xam ne it lañu réeroo ñu si jàppalante buñ ko defee rek yàlla mën nañu defal tawfiix ak taysir ak najaha mais xaalis waaw xaalis damay wax ne secret xaalis am na siru xaalis. Hmm. am na siru xaalis am na. am na loo xamante ne ni boo ko defee doo mos a ñàkk xaalis hmm. doo mos a ñàkk xaalis hmm. loolu moom secret bu wér la boo xamante ne danga koy def am na noo koy jëfandikoo nag boo ko jëfandikoo noonu xaalis moom sa poos même boo si deful xaalis boo dugalee si sa loxo sa poos dañ si fekk xaalis parce que réew mi moom moo toll foofu xaalis amut waaye dañ am na ñoo xam ne nag dañ naan xaalis amut waaye réew mi am na xaalis kanaa kay xaalis bi dafa circuler wut nu war a circuler wante réew mi am na xaalis xaalis bi dafa circuler wut wante dañuy wax ne secret xaalis moom am na siru xaalis am na képp koo xamante nag bëgg nga ko incha allahu rabbi boo ñu wooyee rek si numéro boobu defee naa ne bu soobee yàlla dinañ si jàppalante ak yow asalaamaaleykum beneen yoon maa ngi nuyu waa Sénégal di di leen nuyu yéen itam di leen ñaanal yàlla bu baax di leen ñaanal ba li nga xamante ni bëgg ngeen ko seen sit bi yàlla defal leen ko ba mu dem ba doon tele wala lu gën a kawe lool bu ko defee yàlla sàmm leen yàlla aar leen wattu leen di ñaanalit senegaal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp di leen ñaanal fu waaye mëntu nekk ñi nga xamante ne ni ñoo feebar yàlla fëgg seen bopp yi bañ jog si jàmm ñi nga xamante ne ni ñoo ñoo nekk prison te nekkut seen sago moo leen fa yóbbu dañ leen tooñ ñu yóbbu leen fa wala ñu tuumaal leen yóbbu leen fa yàlla defal leen jàmm yàlla gaawal woyofal daal seeni mbir bañ dellu si waat si seen biir njaboot ko defee rek ñuy wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.